kan moo fi bëgg a ñam ëllëg ca tàndar mooy Serigne Babacar Ndiaye bëgg ngeen ca su ngeen ci bëggee ñam xam nga nan ngeen di def jëli leen tariixa Cheikh ñun ndaw jamono bi jamono ndaw ñi la ku xool tànt yi xam ni mag ñi bareetunu te mag ñi ndaw ñi lanu yaakaar ci diine ji ak tariixa bi jëli leen tariixa cheikh saabu kay dindi tilim moo ko tax a jub am déet kon jëli leen tariixa cheikh xanaa xamoo ni boo jëlee tariixa cheikh soo bëggee alal mu yomb la boo jëlee tariixa cheikh soo bëggee soxna mu yomb la boo jëlee tariixa cheikh soo bëggee jëkkër mu yomb la boo jëlee tariixa cheikh boo ñaawee sax bu yàggee dangay rafet boo jëlee tariixa cheikh dangay dem aljanna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 Babur tandar may aljana bay bay rana ceytan ali buri tandar may aljana bay bay amana ceyto soppe jaaji tandar may aljana loxo ca kaw bay bay amana ceyto li tool yawmal qiyamati ngeen calani dog di waxtaan waxtaani bëgg ngeen bay gëm ngeen bay jëfil ngeen bay jox ngeen jox naa la man sama xol ngeen doxali wa bay bay mi di mi ma jox naa la man sama jeunesse

وبيشي قد بشرجت ففتان خجنا شاه بشرجت فسيودان خجنا شاه سبسرجت فسيودان خجنا شاه محمدنا هو سيدنا فلا إذن لنا لإجابته يا فمحمدنا وسيدنا أنا نبغي ينتبه إزلنا لإجابته لخطك أسوق بدا بدا نعت الأتيه ولين دنجا من وفرته خير الأنبياء فمحمدنا هو سيد إجابتي لخجك وفاق رسلا سلافلا وقولا وقولا سدانا لجلال مدينة فمحمدنا هو سيدنا كل مكان لإجابتي وابتيا لخوتك وفاقا رسولا فضلا وأولا وأولا أدا سدالا شمولا يا برمدينا فمحمدنا هو سيدنا الذي زلنا لإجابتي لخوتك وكنز الكرمين يا خجك وكان نزل كرم يا مولاي يا خجك وكان نزل كرم يا مولاي يا كان نزل كرم يا مولاي يا دين بطمي أممي شريعة مدينة فمحمدنا هو سيدنا الإيزلنا بإجابتي بالله حسك نسبي أعلى الحسن على حسبي يا إبر المدينة فمحمدنا هو سيدنا ولك زلنا لإجابتي لخجك وأزكى نسبي نسبي أعلى العسل على حسبي كل عربي عربي يا برم سيدنا برم محمدنا هو سيدنا جينا ولك زلنا لإجابتي جبريل أتى ليلة الأسرى لحجة جبريل أتى يا ليلة الأسرى جبريل أتى يا ليلة الأسرى ورق ورق أي فلاسدنا فمحمدنا هو سيدنا بالله لإجابتنا بالله سعدتي سجرة سجرة نتخن عجرة نتخن عجرة شيخ الخمارة خمرة مدينة فمحمدنا هو بالله زلنا بالله نال شرفا شرفا والله عفا أما سلفا يا إبراهيم مدينة فمحمدنا هو سيدنا رئيس لنا بإجابتي بالله إنا لنا لنا لنا لنا شرفا la sharafa billah wa wallahi sharafa loxo ca kaw naa la naa la ku nekk nga dedal jox ko loxo ni ko baal ma ak man baal naa wa wallahi ana wa sharafa naa la naa la naa la la sërëf àdduna yàggul naa la sërëf bindaa waaw looy sërëf nañ bàyyi xuloo naa la naa la eh oh sërëf naa la wéyal sërëf naa la naa la لشرف الدنيا قلنا لشرف منا مولانا زنوف لخجك ورنا لنا لنا سيلنا لكم الدنيا نغم بالنا لشرف لنا لشرفا واخلنا كنا لشرفا إلا وقرقي زرفا ee eh, dama bëgg naa la sharafaa ji kuy góor rekk wax ko ca kaw ku ko wax yàlla na nga am kër ca aljana ku gën a kawele baat yàlla na sa kër ca aljana gën a kawe wax leen ku ma awran aw deen naa la sharafaa wax leen ko la sharafa xale mburi naa la sharafa wax leen naa la naa la oh ku ma musa tooñ nang ma baal baal naa la sharafa gën ñëwoon naa la naa la naa la naa la sharafa dafa sew naa la sharafa waa daa sharafa sëriñ Abdul Aziz Sikki mooy Amina Amina xalifa ba dem na général yaay Amina sëriñ Abdul Aziz Sikki mooy Amina dëgg na Tiwaawa doy na la doy na Amina sëñ Abdou sagal nga diine jëg tariixa bi Amina al Amin sagal nga diine jëg tariixa amit oo teral na mbokk yi mbokk ngeen yaay Amina Serigne Abdoul Aziz Si kii mooy Amina Ali Baba dem na Tiwaawan doy na noo doy na Amina sëñ Abdou sagal nga diine ñi te tariqa bi Amina ay waay sagal nga diine ñi tariqa bi Amina sëñ Abdou Aziz sagal diine jën tariixa bi amin oo teral na mbokk yi yaay amina Sëriñ Abdul Aziz Si kii mooy amina ci waawan doy na loo doy na amina Sëñ Abdou jaale naa la ko rek Tabaski gi amina amin yàlla na la ko rek te bés gi amin boo jaale kam mudara yaay amina Abdu jaale naa la korite Tabaski gi amina al amina كردونا يا أمينة سيدي عبد العزيز سكي يا أمينة وابورتي وودينا يا أمينة كنا كنا لين demati waawan ñaanal ko amina waaw bu ñu jullee ba pare ñu ñaanal ko amina bu ñu ñaan nu wax amina sëriñ Abdul Aziz Si ngir moon amina Tiwaawan jooy noonu jooy na amina sëñ Abdu suma musaana way danaan ma caat way yi neex na ma tàllal mu ñaanal ma man ma wax amina sëriñ Abdul Aziz Si ngir moon amina na Tiwaawan jooy na jooy na Amina booy julli jàng Faatiha tollu ci Amina nan ko wax ci suuf bi royal Amina royal Sëriñ Abdul Aziz Si ki mooy Amina Tiwaawan jooy booy julli jël sa loxo yi taf ci sa dënn bi amina Serigne Abdoul Aziz Sikki amina Tiwaawan amina wax amina سرفت عينا يا دمعا واي كسوم سيري عبد العزيز الامين ندفني